Thank you.

xale bi tey delloo bu wér sëriñ bi di la bu wér waaye mbokk yi tey jii day bis boo xam ne si ni ñun donga yëpp ñoo ñëw ngir di yeeslu di dellowaat sëriñ bi di ko tàllal suñuy loxo tey yeesluwaat ci jëmmam xëy na ne ñun amuñu yërmaande ci suñuy jëmm waye momrek, rek lañuy xol diko di ko yërëm ndax xëy ne lepp moma di siaré bu baax di siaré kilifa yim togal ak sunu wayjur andal di siaré mbokki talibé yépp rek sëriñ bi ñi ngi fasiyéné di di yeesluwaat sa jëm di la jébalat sunu ro di la jébalat sunu fasiyéné la xasaay laxasaayuwaat musu ñoo jug ci laxasaay waaye dañuy fas yéene delluwaat laxasaay yi ndax sunu yaakaar ja ki nga xam ne moom lañ daan àndal lii muy nuru nur lu fi jugee te jugewu fi te saa su ne bu ne jàkk sa jëmm ji di yëg ci moom te du fi jugee ba ilaa yawmi diini ndax kat nii mu ko daan taxawee daan ko defee wax dëgg yàlla ñi fi bàyyi yàlla matale na leen loolu ba nu koy taxawee di ko di ko waxee kon nag na ñëpp dalalaat seen xel. te dollewaat suñu yaakaar te xam ne sëñ Ahmadu naa ngi nii toog mu jugu fi te du fi jug muy sëriñ Mame Bara muy sunu yaakaar tey ak ëllëg adduna ak ñu gëm ko lool te yëmalewuñ kook dara muy sunu ndey di sunu bàyyi sëriñ bi nit la daan wax mooy nun sëy nan te dootu ñu tas nun sëy nan te dootu tas nun sëy nan te dootuñu ñu tas amuñu kenn ku dul yow yaakaaroon tamit kenn ku dul yow ni ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ak way jur wi nga xam ne si nii moom lañ fi nekkal di soxna Faty Alé Cissé nga ñaanal nu ko sëriñ bi bu baax a baax yan bi ñu bari dañuy ñaan mu oyof waaye mës ta diis ta du diis barki Cheikh Ibra mës ta diis ta du diis ndax danoo xamoon li nu waroon muy topp ci sunu gannaaw kilifa ami kilifa tay déglu ndigal tay bàyyi tere moo tax yàlla ba mu ñu ko tegee dañ koy ولد démb rek maa ngi koy wax. wala bi ma ko siyaasee ndax bi sëñ Moustapha Abdoul Aziz di jógee soxna Fatou Allé ci kër gi la ko sëñ Moustapha Abdoul Aziz bàyyiwoon bisum àllarba la ci jógee ci moom ba bis bu dee gisee ci la ñuy gis Tuuba kon ñu ngi si taw ñu ngi am nag liggéey bi sëñ bi amoon waaye li sëñ bi wax rek jógee fii ndax Mbacke yaa ngi si biir Bakary waaye sëñ bi wax naa la ñu ngi waaye suñu wér-gu-wér soxna Fatou Allé ñu ngi sëriñ bi nag bu ñu ko jógee sëriñ Modou Moustapha la fi bàyyi woon àgg na liggéey bi loolu ngi ñaanal yàlla rek mu doon aw fan ko waxee noonu la ko jëfee mu jëf ju sàll ci moom ñu ñaan yàlla yàggal ko te barkeel ko ba nga xam ne sëriñ Moustapha yi ñu woon la ci ko ci barke borom suñu way déglu yi suñu borom taxaw ko yàggal ko bu baax. jëm gën a góorgóorluwaat bu baax. kon nag damay ñaan rek ñu jàng Faatiha ak fukki xalaat ak benn ñaanal ko sëriñ Moustapha ak sëriñ Ahmadou Mbacké ci kat ci waxtu yi ñoo xam ne kon ñuy ñaanal sëriñ Moustapha tey mu wóotu ko te bu ëllëgee nit ñi dañ fiy jóge waat ndax fii àdduna kenn saxu fi saxu fi ñëpp a fiy jóge waaye nañ sax ci lu baax. nañ sax ci taal bi nañ sax ci jaamu yàlla nga xam ne àdduna moom amut solo. waaye li am solo ba am solo mooy nga jaar ci yoonu siraatal mustaqim nga doon ab taalibe nga sax ci jaamu yàlla nekk ci lu baax fay moytu saxam la yàlla suñu borom dimbali dégg naa bu baax Mbàkke dégg naa bu baax sama xol sedd na lool ci taxawaay bi gis na lool gan waaye woyof na lool hmm. woyof na lool ndax pénc ñu tey fi borom di jógee benn kër boo xam ne doomam moo ko moom amu fi woon benn kër benn doomam amu fi woon benn tax ak sëriñ Sadio si kër tey nag boo fi ñëwee tey xam ne sëriñ Sadio si moom laay dëggalee na sëñ Ahmad Kon Bousso sëriñ Jalle ko nañ ñu kon yal na suñu borom def barke yal nañu yàlla bële di mbokki taalibe yi gis nañ seen taxawaay bu baax gis nañ seen yitte gis nañ seen affaire ci sëriñ bi ñu ngi leen di gën di boole ak sëriñ bi bu baax ngeen ànd ak moom liggéey bi ndax jàmbaar la gaynde la taalibe la murid la bayfaal la ndax dafa xool ndab yëpp liy maye dara mooy liggéey Serigne Touba te ki nga xam ne moom lañ ci gën a ràññee mooy Cheikh Ibrahima Fall mu jël yoonam woowu di ko doxe julli bàkke gi te ko fee jël ak laxasaay waaye suñu wajju bi moo ko njëkkee soxna Faat Aada Baye Fall ak sëriñ Moustapha la ñuy wax ba moom soxna Faat Aada Baye Fall moo jiitu jotaay bi tey kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla barkeel ko yàlla yàggal ko yàlla wëral ko di ñaanal suñu maam Baara Mbàkke nii yàlla guddalaw fanaan yàlla barkeel ko ndax tey jii kat fii sëñ Axma tooge woon moo fi tooge tey fii sëñ Axma taxee woon moo fi tax ndax agsiwaat ni nii ci biir jotaay bi ndax boo demee tamit bàyyi woo fi leer man nga dem na sa jëmm ñu fi te fu ñu taxaw di ko xool rek ki njëkk ak si moom daal si takk ci sama kaw war na mën a jëmm jaay si ñu ngi siyaara bu baax ak leen barkeel bu baax ñaan ñu yàgg koo jëfe yàgg ko am na yàgg ci am ngërëm bi nañ gën a góorgóorluwaat bu baax ci liggéey bi nañ gën goor góorgóorluwaat ci yoon sëñ bi nañ gën a góorgóorluwaat ci taal bi nañ gën a góorgóorluwaat ci yoon siraatal mustaqim nañ fexe ba daal loo bañ dee ci bu ko def hmm. kon bis bu set bis bu set nañuy jekk jekk nag mooy tegu ci yoon boobu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa a barakaatu. Mbàkke bég nañ bégte nañ sant nañ da gërëm nañ da yàlla yàlla ba li barke.